la ba fii mu ni ben la nu woon noo daa ci ben lal lal bo xane wi bi un mètre mu ba ba ba bi ni doon ma musta juyoog man ben da da waxo kërëm dox ndànk nonu muy dox ba ñu tok ci lal bi ñu ba ci wala laa soxla woon nu waxtaan sunu waxtaan def la ñuy def lepp ndakar goge gudd du fa ma sa di dem noy and doxé nanu Grand Yoff ba ca pale ba boo xam ne bii danoon danoon dox suñu tànk rek tërëm bu benn place ndax naqari jamono bokk na tëdd ci lal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ca Ndakaaru yoo xam ne ci lal boobu ma la wax un mètre cinquante ma tukk loolu foo ko boo fi jaaree nit mosu leen tàggoo boobu na la wóor ne eh, moom ci boppam daal fa ma ko teg mënu ma ko wax mënu ko wax. ku nekk xam na ne ab taxawaayam ci kër boroom daaru ca Serigne Momadou Daaw Balla Serigne Abdou Khoudous ba ci Serigne Cheikh Addi ba ni mu nekkee borom daaru képp ku fi mu a nekk rek nekkal na sa Baay Faal ba keroog muy nekk borom daaru Moti. di seere it diggante sëñ Abbas ak sëñ Momadou Daaw Balla ndax sëñ Modou Mbacke nga ne moom moom sëñ Abbas sëñ Momadou Daaw Balla kon loolu rek wane na diggante boo xam ne nii diggante bu dëgër la woon benn yoon bu mos a dégg sëñ Abbas mu yëngu ci lenn jëmee ko ci leneen lu dul liggéeyal sëñ mu daaw Balla ak borom daaru Muxti képp koo xam ne borom daaru Muxti la jur wala képp koo xam ne doomi borom daaru Muxti a jur eh, ci taxawaayam lépp lu mus a xew dana fa jiitu te moo fay mujj nga xam ne boo demoon ci sëñ Abbas rek ñëw nga ci sëñ Bass boo demee ci sëriñ Basiiru ñëw nga ci sëriñ Abbas ndax kenn ku ci nekk xam na ne lim ko mage waaye teewul magel gi mu ko doon magel yëpp daf ko jappé won mbokam jappé ko rakam jappé ko serignam jappé ko kilifaam ndax nit bo xasse ba jël sa deret jëlu tawam jox ko kon ak mën mënta weesu loolu te taw serigne Abbas bi fi nek tay Mouhamadul Basir la tudd tudde ñu tuddé ko serigne Basiru mi rax ci dolli njabot gi bo fa démé doomi serigne Mouhamadul Basir ju jigen ma nga fa soxna khadim bakki bo ñëwee fi ci kër serigne Basir Anta doomi sëriñ Abbas ju jigéen mi ngi fii ci kër gi di soxna Mbàkke mu wëlbati ko tuddewaat ko soxna Mbàkke mi nga xamante ne moo sëriñ Basiiru ñoo bokk ndey ak baay kon ak jaxasoo mënta weesu loolu jamono yi may jàngee jànge Mauritanie fekk na ma tukki si fa bi mu ñëwee am benn kër ki taalubeem bu muy dal wante taalube bi dafa doon koo xamante ne wax dëgg yàlla buñ ko dee xool ci saayir ci kaw ku néew doole la waaye ku sàggan la woon sàggan gi mooy am na yu bari yu mu daan jëfandikoo ba néeg bi mu daan nekk da ci ci suuf si sax da koy maasale waaye da ngay gis eh, kii cigarette yi nga xamante ne da koy suul ci suuf sëriñ Abbas ñëw fa bu ñëwee moom lay dalal mu dem dal ci biir néeg ba daal di yónnee ndaw ne nañ ma max moo Mahmoudan ma ñëw fekk ko fa bi ma ko fa fekkee keroog bi ma nuyee bi ma sukkee jox ko sama jaari loxo nuyu ko sama rongoñ da doon tuur ci suuf parce que néeg bi mu nekk la. ma muñ ko muñ mënatuma ko muñ ma génn dem kër ku ñuy wax diine bay moo fa nekkoon représentant Sëñ Abdou Lahat ci jamono yooyu amoon na fa kër yu baax yoo xam ne yu ñu defar ba mucc ayib la mel na mel ma dem ne ko doomi sëriñ doomi borom daaru di def fee ñëw sëriñ Abbas te fee mu dal dafa mel ni yéeloo wut ak moom dama bëggoon ñu wax ko naxanteeg moom mu ñëw ci kër gi dal fi su ko defee bu fi dalee bañ waxtaan ak moom ba noppi taalibe yi ñu daal di ci taalibe yi yëpp ñu ñëw fekk si ko fi mu ne ma déet loolu kay jërul sax waaj ndax kër gi kër sëñ Touba bu fi doomi borom daaru ñëwee moo ko moom. ñu daal di ànd dem ba ci Serigne Abbas ma sëgg wax ko nuyoog moom ba noppi ne ko sëriñ bi kër sëriñ Touba gi nekk fii de diine béy mi moo ko moom kilifa gu fi ñëw fa lañ koy dalal dama bëggoon ñu ànd dem ca kër ga dal fa su ko defee boo dalee foofu ñu wax taalibe yëpp ñu ñëw fekk la foofu. mu ne cell ba mu yàgg mu siggi xool ma ne ma max moo Mahmoudan li nga bëgg a wax lépp xam naa ko wante dama laa bëgg xamal lu tuuti képp ko xamante ne alali àdduna ju bon ji wala taaru àdduna ju bon ji tax na nga abandonné say taalibe yi la sëñ Touba booleel nga war leen a teete ba yóbbu leen yow yowmal xiyaam boo dajeeg sëñ Touba da nga rus daan ne ma ngóor sii lii muy def su ko ay bokkam abandonné ab sëriñam abandonné ko kan moo koy jubbanteeti bàyyi leen ma toog fi ak moom melokaan wi man xatalu ma du tee mën na maa nelaw du tee mën na maa lekk yëguma sax melokaan wi mel bàyyi leen ma rek ma toog ñu ganale ko ba ngan ga jeex mu ñibbi teguñu ci fukki fan ak juróom ngóor soosu ma leen doon wax ku yàlla bind moo la gën a jub bàyyi tux bàyyi naan sàngara bàyyi lépp nga xam ne daa mujj sax di di boo xam ne du jóge ci jumaa yi waaye ku ñeme woon nit ñi la ku ñeme woon ay taalibeem la ku leen daan jubbanti la bu saan ñëw yoon yi nga xam daana ko ñëwee taali bu mosaan ñëw lim may njëkk a wax Mahmoudan nan ànd dem seeti leen waaye li ma lay ñaan bul laaj dara ci sama tur bul laaj kenn dara ci sama tur kenn ku ci nekk na doxe coobareem luy coobareem ak nu mu toll rek doxe na ba benn bis ñu dem Milan ma ne ko sëriñ bi dama bëgg dey ndax feenu jëm moom wax dëgg yàlla metti na metti goo xamante ne yaakaaruma ne nit mën na faa tëdd dama bëgg ñu jël hôtel su ko defee bu guddee bu ñu waxtaanee ba noppi nga dem fanaane fa mu ne ma déedéet man ak yow nan ànd ñu dem seen kër yee la muy bon bon la muy taq-taq la muy xat-xat nan ko bokk ak ñoom ndax taalibe yi boo bokkut ak ñoom la ñu nekk ba di gis la ñuy nekk di xam la ñuy nekk doo leen mën a jubbanti kon lum naqari naqari lum metti metti nañ bokk ak ñoom man mii di wax ak yow keroog bañ demee ci kër ga àgg mënumaa fanaan ci kër gi ndax melokaan wu mel damaa mujj tijji sama oto di ci sama oto laa fanaan ba bët set te booba jamonoy sedd la waaye moom li kër gi mel mel dara déranger wu ko ci du jàmbat du def dara du ne toggal leen ma ma lekk du ne yàkkal leen ma du ne def dara kon kuy seet as gor as gor piir la woon ab jullit piir la woon nituk yàlla piir la woon ku jege woon ku jege woon it taalibe yi te ku leen doon bàyyi xel mosu leen a abandonné mukk mukk toujours mi ngi ci seen wet toujours mi ngi leen di jubbanti toujours mi ngi xool ci la ñu nekk. ba ci ay bokkam yi nga xamante ne moom la nekkaloon it kenn ku ci nekk gis nga ko ñoom ñëpp la bàyyi woon xel wax naa leen léegi sëriñ Bassirou Anta Niang ci jaxasoo goo xamante ne jaxasoo nañ Abbas te noonu mu mel ak sëriñ Bassirou Anta Niang noonu la meloon ak sëriñ Moudaw Balla noonu la meloon ak sëriñ Abdourahmane noonu la meloon ak mbooleem njaboot yëpp sëriñ Khalid sëñ Meqdaat sëriñ Mbacke Anta sëriñ Dame Faati mi mbokkal wenn wayjur ñoom ñëpp noonu lañ meloon. sëriñ Abbas nit la koo xam ne boo nattee diggam ki i bokkam lim ci am ci lim leen ëmbal ci yërmande ak lim leen ëmbal ci wegeel diggam ak jaami yàlla yi. bokk yeeg xarit yaag am di jàmm yaag dëkkandoo yaag ñëpp ba ca fam yori tool sax boo fa demee noonu yi lay doxalee ak bindeef yi mooy ëmbal ñëpp yërmande ëmbal ñëpp jàmm yéene ñëpp jàmm. foko fekk jamm lay wax jamm lay dox jamm lay yene ñepp di wax ak di dox. dajale bokku yëpp nak nun ñepp nu àndandoo mu dajale nu teyenu nu lool la defoon lam waxoni def nak duma du dugg ci lenn lu dul yéen ñi dama ci waxtaan ak yeen ba jubo ci ak yeen lu ngeen ma ci xelal ma def ko di ko xamne ki nak nag du jubo ak magam yëpp soko fekk fekkee sëñ Abdou Khoudous da nga na ki rek la jubóon nga ñew ci señ Mahamadan nga ne Abbas señ Mahamadan rek la jubóon señ Mahamadan musuko wax Abbas mu bur messar rek la ko daan wax nga ñew ci fali lu man andam ak mom señ fali yónni na ma ci mom ay yon wolo mako wa mom señ sëñ Touba kenn la won ak mom ñun ma laaj señ Abbas mom sa yàlla degg dama nak ndax sama baye sama goral señ fali sama baay ñoo dañu dañoo xaritoo woon lool ma ñew fii itam Darou Mouhty ñun si yaakaar naa ne fekk ko fi mu taxaw ko taxaway baye bu ma sekk nak doon sama baye doon sama lepp bi amé doom itam ba mu am borom kër itam mu jël ko jox ko taawam bëgg ma lool nag yàgg sëñ Fall sama yaay mi ne toog ne ma nga ne toog ci ëtt ba ar mu jox bu mat sëkk mag tey tabaski bu masaana jot xar yi day jël yóbbul njabootu sëriñ Touba te moo na moom day moo doon xalifa màmbal la doon xalifa sëñ Mor Anta Sali doon xalifa borom daarul Moxti waaye taalibe nga newoon ci borom daaru Muxti moom la donn ba ab taalibe la doon dund keroog ba fi e, sëñ Muntaxa ñëwee itam la fa feeñ mooy joxanteb cër bi nga xamante ni bii mooy gànjar gànjaruk yoonu murit laata muy doon xam ko suñu diggante ak moom ak ak sëñ Abdou Khoudous di ko dund ak hmm. ne léeg-léeg suñu jotaay nu ñett rek lay doon hmm. ak lu ma sëñ Abdou di wax ci moom ñu bare bare bare ci xam ne hmm. sëriñ Abbas ak sëriñ Abdou Khoudous bokkuñu way jur wu jigéen ndax bind ba ak jaxasoo ko ak àndandoo ko ñu bari dañ la koy laaj ci ñëw pëcc taalibe sëñ Abdou Khoudous te jàpp naa ne moom ñoo ñoo ak ni mu nekk woon ak moom waaye terewul nag mu am ko ci mbooleem njabootu borom Daaru Muxti gi ci des yëpp kon yaakaar na ne mom day sunu borom beral na ko lo jox na ko li nga xamne euh waccio na mom mu wat ko ci sunu borom wat ko ci ñi nga xamne ñoo la euh sekkal borom daaru mu amul abul ben ben bëgg bëgg bopam bo xamne bi eh, itel nako ko tere ko nelaw lu lu ñëpp bok man nak sama dig ak euh sunu baay la sunu mam la ci wet waaye yooyu yëpp nag dañ koo jël jaay ko jëndee ko ak taalibe sunu baay la ci wet mooy mook sunu jur ñoo bokk yaari jur sunu maam la ci wet mook sama maam ji jur sama wayjur wu jigéen ay doomi ndey lañ ndax seen ñaari jur yi ñoo bokk ndey ak baay sama sëriñ la nag mooy li gën a wér ndax loolu lépp li muy baax baax noonu dañu ko jëloon jaay ko ko jëndee ko ak taalibe di déglu ndigalam bu diglee jeex na bu amee bëgg mu dugg sunu nopp jeex na euh, li ni ànd ak moom yëpp tamit musu ne ko may euh, xam naa li ma sa bàyyi ci moom di ñëw ci man mooy bis euh, dañuy waxtaan ci wàlluk jëfandikoo gu may jëfandikoo cere ngir di ko ci roy ndax am lu ma ca wax mujj na dugub sax léegi léegi su ma ko manqué ci ndakaaru dama koy jënd bu ma ko manqué bu koy bu ko yëgee rek day daal di santaane ñu daal di may jox dugub may indi ko fii waaw te loola lu ma may ci boppam la dem na ba am soow sax buñ ko ko daan indil wala meew léegi léegi daf koy teg ci orel bi di ma ko yónnee ba fii ci ndakaaru ba ci fanam yu mujj yi rek yónnee na ma fi soow ak ak meew ay yoon te loola yëg gi mu am ci man ak cofeel goo xam ne man xamoon naa ko ba tax na sax du ma puukare woo loola ndax it man dama jàpp ne sopp gi ma sopp baax na waaye man cofeel gi ma ko sopp man ci lay jariñoo noonu nu jox ko sunu bopp jox ko sunu lépp di ko xitmaal euh, ba ah seedeel nanu ay yooni yooni yooni yooni yoon ne li ñuy def lu mu gërëm la li ñuy def lu mu sant la te làq ngërëmal koo xam ne làq na ngërëmal yàlla loola defe naa lu gën am njariñ ci dund gi kon li ma may ci boppam euh, ëpp na ma man li ma may ci boppam ëpp na ma lu jiitu muy doon Cheikh Ibrahim euh, fu ma masa nekk rek ci wayafam ak mbaaxam fekk na ma fa muy ngumba ngewul dafa daan ñëw nemmiku si ma euh, muy darul mooti bu ma masaanaam tudd wala dara mooy jugal boppam ñëw tudd ko loolu lépp ci wayafam la ak baaxam euh, ba ci Cees euh, nemmiku si na ma ñëw ba ci sama barab ba ma dëkkee Dakar sax a jiitu Cees ndax Dakar moom cant yi ma daan def ci njëlbeen gi daan na ñëw lu mu gàtt gàtt mu defal ma ñeenti fan ak man mbaa ñetti fan yoo xam ne ñoo koy bokk di nekk ba njabootam yi ñu cëpp sax dañ daan ñëw di ko fekk si foofu ci barab bi mu def fi ñeenti fan mbaa ñetti fan gën gaa gàtt euh, doog a te dana daan na ñëw ba ci baas bi sax ñaanal mbooloo mi doog a duggaat ci biir kon sunu waajur la euh, kun daan jàppale la ku nu daan dimbale la lu jiitu lu yàgg sax mu nekk ci xilaafa gi li may wax ni mën naa wax ne bi fi sëñ Moura Balla soog a jóge la wala boobu bi sëñ Abdou Khoudoss soog a toog hmm, am na ay jamono nu toog di waxtaan mu ne ma dëkk du dëkk gone ndax mag mi ak gone gi ñoo bokk lu ñuy def man nag ma dëkk boo xam ne boo xëyee suba naan sa kafe dox bam neex la nga jadd ci kër señ ban agn bu ngone nga ñew dem naan naan café wëlbati ko dox ba reer jot nga dugg ci kër reer delluwaat tëdd bu subaati lolu mu ne amone ne ma mag ñi nga xamni ñoo jëmutul fenn mënatuñ dara ñoo koy def waye gonu waru ko def kon nak ñi fi nek te yeen ñi te te tollu ci euh, seen doore da ngeen wara genn ñi jang nañ jang ñi liggey nañ liggey kon man na wax ne mom yàgg nañ moo jàppale yàgg nañoo dimbale loolu mooy li nga xam ne nekk gun xalifa keroog bi mu nekk euh, borom daaru mooti mu ànd ak daayira yi ñëw di ko siyaara si euh, lam ma wax moo di li Cheikh Abdoul Khoudous defoon daa Cheikh Khady defoon ko du ma ci yàq dara duma ci dindi dara loolu rek laa bëgg ngeen fas yéen ñu àndandoo ko liggéeyal ko muy fédération Maam Thierno Ibrahim Mbacké bi nga xam ne moo nekk Italie ak Espagne waaw bi yàlla dogalee eh, mu toog fi ab diir daf ma woo woo sëñ dara woo sëñ Maam Thierno mi mi ngi ni toog seere la ci daal di génne un million deux cent ci xaalisu boppam daggal nu ay biir ne dama bëgg mu ngeen dem bu ngeen demee ngeen dajalewaat taalibe yi mm, fàttaliwaat leen jaar leen li nga xam ne mooy mooy mooy mooy eh, li Serigne Touba bëgg ci ñoom te loolu mooy eh, ñu fonk seen diine fonk seen liggéey fonk seen ngor góor góorgóorlu eh, ba ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii li ñu di digal ak li leen Serigne Touba digal ñu ñu ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax waaw te takkutoowaat àndandoowaat ndax loolu ngeen wax ne moom la ab Abdou Khoudoss waxoon. man loolu rek laa leen di waxaat te Abdou Khoudoss daf ma waxoon ne na ngeen takkatoo àndandoo doon benn waxuma la lu ngeen fii indi man ndax man lu ma war a am am naa ko mag laa itam nit mënatuma jox euh, lu ma jëriñ dara waaye nag dama bëgg yéen ngeen àndandoo takkatoo ba lu lu nit nekk rek ngeen fekk ngeen jàpp ci bu dee koo xam ne kii dafa nekk jàmm ngeen jàpp ci bu dee koo xam ne kii dafa nekk sa safaan ngeen mën koo jëlal avocat wala ngeen ko mën koo dimbali ci seen alal nu ngeen mën mu ne loolu ci la nek seigne Abbas digënde mak Baye Cheikh lu xoto na lu sori la amna benn bis bo xamni bi Baye Cheikh nalawé ñett fan wala ñent fan kéro amna fuma dugg ci kërëm fo xamni kéro la fa dugg kéro waxtaan na ci waxtaan wu am solo dem na sax ba ag ci ni ma na ni ne Baye Cheikh may taxaw japp na ni ma fi jëkk a Baye Cheikh waaw ni ma lii de la. jàppoon naa ne Baye Cheikh maa ko moo moom moo may taxaw waaye jàpp moon ni maa koy taxaw te li ci wax toujours nii seen diggante amoon na complicité complicité mooy ñaari ñoo xam ne dañuy déggoo ba nga xam ni lay dox seen diggante buñ toogee sax mën nañ ko buñ xoolante mën na mën naa am seen diggante wala buñ waxee te ke ña fa toog duñ ko xam ndax weeru gàmm wi nga xamee nii bis baay Cheikh di nelaw kuppantum la ko fekk ca tool yi kéro man mi la daf ma won ni ma dama bëggoon bu suba ci la jël ma sëriñ bi ni ko dama fa bëggoon ñëw siara ci ko ma wax ko Baye Cheikh Baye Cheikh ni bu suba ci tàkkusaan man na ñëw man ma and ak Abdourahmane Diop dem jëli ko ci sama oto bi ñëw ba ci biir bam mu nuyoog sëriñ bi man ma jóg bàyyi leen ñom ñaar ñu waxtaan lañ doon waxtaan ni wax de yalla xawmu ko waaye man dal dem na ba soro leen lañ doon waxee dégguma ci dara bañ waxtaanee ba agal seigne abbas ci bop mo taxaw ci buntu bi ni ma Abdou ñëwal ma dugg sëriñ bi ñaanal ko jox ko ay eh, daal ni ma teel ko dal ba ngeen ak kërëm ñu gënaat mu dugg sama moto maag Abdourahmane Diop ñu yóbbu ko ba kërëm dal ni ma yow de da nga ma yàgg nga ma dig ni ma da nga ma seet si tool te bobu léegi gisaguma la ma ko buñ gàmmoo pari bu soobee yalla dina fa ñëw bañ démé mu ngana la ngan gu neexa neex kere bi añé pari pare mo taxaw ci buntu bi mo mo jóge fa mu nekk dox ak tank ba ak ci buntu bi dal ni ba añ ngeen bu ñu ko añ nañ bu baaxa baax mu ne seen ñew gi ngeen ñëw fii koppantoon dama ko xamewul ak Baye Cheikh Khady jóge woon daaru mu si gana si ma fi ba may dem mu jox ma am xar jox ma saaku gerte jox ma saaku këriñ ma ñëw fii ci Baye Cheikh mu ni ma nu seen ngan def ma nettal ko ngan nganam demee yépp bi ma àggalee bi ma waxee ba àggal mu ne ma Abbas de ku moomu laa ñam la ni mu nekk gone ba ni mu nekk mag di Abbas sa fi wax lii kenn du ko dégg ni ma ko jaamuree nga ma ku teew laa ñam noonu lii Baye Cheikh Baye Cheikh ko seere ma fekk ko dégg ko kon li ma bëgg a wax maanaam mooy diggante ak sëriñ bi am na lu ñu waxtaanee ñoom loo xam ne ci avant gàmm gi lañ ko waxtaanee gannaaw gàmm la la fi sëriñ bi jógee. yoon woowu keroog bi muy ñëw Italie ku fa nekk te Italie bi maam borom daaru Moti Baye Cheikh dafa laa wax ne la sëñ Abbas moom bu ñëwee bu mu weesu ñetti kër bu mu dugg ci ay saxaar bu mu dem fen fu mu nekk na ko fa Italie bi borom daaru mu si fekk nañ jàpp ne sama jëmm fa ñëw ñam ko ñam ko santoon ñu ngi fi ñam ko waxaloon ñu ngi fi neen bu leen bu leen bu leen ko jàppee sa yàlla jàpp leen sama jëmm fi ñëw doomi maam Thierno fi ñëw bu ñëwee fu mu fekk ku ko bëgg a teral nek nang ko fek wala nga dajal yu ne bu ne di dem ci di dem fenn kon digënde ma bay Cheikh lu yaat lo won rafeton la mu topon bay Cheikh nangulon ko ak moom diggal ko man de wax di yalla sama xarit won lol lol lol lol lol te itam nu ngo topé nu ngo topé moko may mu nek borom Daaru Musti nek khalifa mam Cerno Ibrahim, ndax da top ci wajuruma cierno ibrahim mam cierno topp ci moom di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba maam ci nu gërëm ko mu topp ci magam yu baax yi sëñ sëñ Moura Balla sëñ Abdou Khoudous sëñ Cheikh Xadim mi fi jóge barki dem mu ñoom ñëpp kenn ku ne gërëm ko ñi bokkal na ñëpp gërëm ko. Eh, sama diggante moom itam li nga ci wax Alaaji Gay sama kër gi ba ma koy door a sanc ñëw na fa yan na fa fanaan fa yan waat ba ci ngoon mu soog dem gërëm néew ma def dana ko du ko fi defal kenn waaye man ñam ko defal ci laa bokk. te mu te mu rëyoon lool nag ci man itam bokki taalibe yëpp ñëwoon fa siyaare ko kon nag li nga wax eh, ak xilaafaam yàgg na yàggut ndax mbir bu rafetee lu mu gàtt gàtt day mel dafa yàgg mbir bu ma doon junni at rafetu tam noonu lay mel kon Sëñ Abbas ak ayam rafet na eh, mbokk yëpp sant nañ ko gërëm nañ ko ñaanal nañ ko fa ay magam ne ak ay waajur mu bokk fa nekk ak ñoom nee na boole gi boole. ak rëcc du ci am. ak rëcc du ci am. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. fii ak fanu jëm. wax leen ko